ñu ne meme mi nag ñu ne meme moo moo gën a yelloo def nag beneen faida bu dul moom ndax moom bu nee ci njëlbeen day indi beneen maanaam bu muy indi mooy day indi maanaam ismu faayil seetal mukrim muxrij mustadii dégg nga ah mim mi day daal di doon ismu faayil ci kaw boo fataa la jëkk mucc soo ko soo kasara soo ko fataat mu tegtale ismu mafool comme mim ci njëlbeen bi day tegtale ni baat bi ismu faayil la wala ismu mafool seetal mukrim mukram mustaxrij mustaxraj siin saak taayaak mim ma yëpp ay zaida lañ soo dikkee nag fii ci jamu faali la nga ko bëgg a jamu nag baat bi ëpp lool fokk nga dindi ci yaari araf ñu ni demal dindi siin saak taaga mim ma moom ba ko fa ndax mim ci njëlbeen dafa am lu muy tegtale loo xam siin ak taa mënu ko tegtal siin ak taa mënu ko tegtale ismu faayil mënu kon nag bal mimu awlaa min siwaahu bil baqa li annahu yadullu ala ismil faayil aw ala ismil maf'ul ida kaana awwalan wal hamzu wal yaa mithluhu in sabaqa hamsa ak yaa it misluhoo ñoo ngi mii ma yam in sabaqa bu ñu dawloo ñu nekk fa di ndolant yeneen baat ne fay ndolant kon dindil yooye te bàyyi fa hamsa ak yaa ndaxte ñoom it dañuy tegtale maana ci beneen baat seetal feelu mu daare soo indee hamsa ni adribu mu tegtale ni yow yaa ko def soo ne yadribu mu tegtale ni moom mi fi nekkul moo ko def kon ñoom itam dañuy tegtale maanaam mu daaraa ba tax na ñoom it bu ñu nee ci njëlbeen ñoo gën a yelloo des ni ki tey alan bat ak yalan bat li shadidil xusumati koo xam ne bu jàppee ay du ko bàyyi mukk mooy alan bat ak yalan bat la ñu koy wax minal ladadi baat bi ladat moo doon cosaanam ladadu mooy shiddatul xusumati wa minhu qawluhu taala aladdul xisaam maanaam moo gën a wolof yi di ko firee xonteen te léeg-léeg wolof yu jëkk ya mooy koo xam ne daal bu jàppee ay mooy nit ku wex koo xam ne bu jàpp mooy ku alad daal mooy ku wex xat ko mooy li wolof naan diw dafa wax mooy bu jàppee ay du ko nangoo bàyyi mukk ñu su ko defee nga ne alan dat nga wacci nuun ga du dëgg a la an da d juróomi xaraf la kooku mënoo koo jamoo fa fa xeetu faali la te dindi woo nga dindi nuun gi zaida la bàyyi hamsa gi ndax moom dafay tegtale maanaam moo gën a yàlla daal ndax feneen fu dul fii dafay tegtale maanaam bu dee ci feelu mu daaro bu dee yalan dat moom it noonu la seen maanaam benn la nga ni alaad ak yalaad dindi noonu nga bàyyi fa hamsa ga in sabaqa boobu dañoo jiitu wal yaa lal waa waxdifin jamaata ma ka xay zabunin fa huwa xukmun rusima nee na baat bi su fekkee ëpp na xumaas yi di dégg nga ëpp na rubaa yi amee yaari zaida nag yoo xam ni benn ba xasafam dana doy walis xasaf benn ba amaa su fekkoon benn boobu mu jëtu bi nga xadaf kooku du tax mu baax foog nga daggaat bu njëkk ba boole ci ni ki baatu xay sa boon nee na kon dindil waawa bàyyi yaaga bàyyi fa waawa ñoom ñëpp sayda dafa mel ni xay zëb ñeenti xaraf yooyu moo doon cosaan ñoo doon cosaan ci baat bi léegi nag mu am sayda ci ñaareel xay yaa googu am itam xay ci ñeenteel ni ki waaw woow du dëgg xay sa boon kon nag soo di duñu fi mën a bokk ne de ndax boo nee xayaa zib du tee nuun nga day des soo nee xayaa zib yem ci baa bi mu jeex du dem kon na nga xasaf yaa ngi ci boppam rek mu des xasaa bin waaye man fee des te xaraf ràgg la woo xam ne israhul lasxatama xaraf yu mottali baat dee ci topp te xaraf kooku passé woon na ni su amee mën nga ko fa baax zaid boobu du dem maalam yakun lay nan israhul lazxatama du moom la passé léegi léegi kon su yaagi dañee rek xayaa zib waaw yi day soppiku yaa rek nga ne xayaa xay zaboon nga ne xasaabiin fekk yaa gi dem xasaabiin faali comme mi nga def masaabiix nga bàyyi fa waaw te soo dindi woon waaw yi du tax mu baax kon it soo ne xayaa zib day des nuunati rek kon nag yox ni xasfu ahadihima doona xasfil axar kon ka nga xam ne soo ko xasafee man faa ba ba ca des te mooy yaagi ba dindi ko nga ni xasaabiinu fa huwa loolu xukmun attab tasrif la boo xam ne xutima war a leef na ko wa xayyaru fi zaiday sarandaaw kulla ma daahaahu kal alanda boroom yaari ndollant yooyu su fekkoon ni benn bu ci ne xasafam mën na remplacer xasafu moroom ma du ko tee baax ak kon kon boo ci xasaf baax na wa xayyaroo tànn loo nañu kii tasrif fi zaiday saranda ci yaari ndollanti saranda du dëgg nuuna ngu fu goo xam ne ndollantu la moo ñetteel alifa nga fu goo xam ne ah, moo mujj ndollant moo juróom benneel kon yaar yooyu boo ci xadaf baax na soo xadafee alif gi nga ni saraanidu bàyyi fa nuun ga jamu saranda wa huwa al- as- shadidu maanaam wa huwa arrajulu shadid fulaanun saranda ay qawiyun shadidun moom waa jooju saranda nga ni saraanidu ndem alif ga nga dindi wala nga ba fa alif ga soppi xadaf nuun ga nga ni nga ni saraadi saraadi nuun gaa daj nga bàyyi fa alif ga mooy soppi ko yaa ndax kasaraa ko jiitu alif bu ko kasar jiitoo ci mujj lu muy xal soppi ko yaa nga ni saraadi wala nga dindi alif gi bàyyi fa nuun ga saraanid waxa yaroo tànn loo nañu la fii saa iday saranda ci ñaari ndollanti saranda nga xasab ku la ca neex bàyyi fa kenn ka alif gi wala nuun gi wa kullama daahaahu ak lépp lu niroog moom ni ki alanda nga xam ne mooy alxaliidu min kulli cheyin ah al alanda su yaboo si fas galeem la su yaboo lu mu doon daal alanda alanda moom moog saranda ñoo tollo moom it nga ni ala ala ala di bàyyi fi alif gi wala nga dindi ko nga ni ala nidu tasxir lugatan mooy tuutal min asigar min kalimati sigari kon sagaraho mooy tuutal na ko tuutal baat nag maanaam illa ba mooy borom tur wi da di ko tuuti xaqiqatan ni kii dafay gone gu tuut wala jëmm ju tuuti lu mu doon nag bu dee xeeru tuut sax nga naan xujayrun asxeer danañ ci jubloot ci wàllu maanaa léeg-léeg taqrib jegeel ci waxtu ni ki qubayla al zuhri wala buaid al fajri maanaa baada al fajri qariban minhu wa qabla zuhri qariban minhu ci jamono dana nekkit li taqrib ci maanaa aatifa ni ki yaa bunay di wax ak ab gone di ko jegeel sam tànk ay sabat ndoom si fekk tuutiwul maanaam da nga koo jegeel ci sa yaa uxayya ak yaa bunayya tasxiiral ko tasxiiru taqrib maanaam ci wàllu at su ko defee qaayida ba nañu koy defee nag bu fekkee sulaasi yu muy muy sulaasi yu muy rubaa yu sax da ngay daamba njaal been ak lu mu mën doon daamba njaal been fata ñaareel andi yaawu tasxiir bu ñu sukkoon la ca topp ñu kasra ko ndegam du sulaasi yu loolu moo doon qaayida bi dégg nga su ko defee bu dee sulaasi yu fu aylun rek mu jeex su dee rubaa yu fu ay ilun lu ko ëppit fu ay ilun ji du ko mën a paase léegi dégg dana aajo bu dee boroom juróomi araf yoo xam ni yëpp xaraf yu cosaan la kooku la ngay mën a def mooy xasaf ca benn nga xasaf lu mujj wala yooyu dana ko détaillé ci biir hakada daanaka moom nag soo ko seetee boo jàngee jamu taksir bi nu jeexal buntam li nandoom ak tasxiir ba ñu di ko ci ses toujours ci téere naxw yi mooy ni daanaka seen jëfen sa jëflanteeg baat benn la boo xamee ni nga ko daan defee ci jam wala pexe ya nga daan jaar ba baat bi nanguwul woon ci yem ci siixatu fa mafa fa mafaila ji na pexe ya nga ko daan def ak xaraf wa nga ca daan xasaf ndem mujj nga xasaf ndem ndollant bu ne ca wala ñaari ndollant ne ca nga tànn ca benn yooyu yëpp mook tasxiir même chose benn la mu ne kon ijal defal sulaasiya boo koy tasxiir fu aylan mu jeex la topp ci yaaw tasxiir bu boobaa kenn du ko kasra pour siixatu tasxiir bi ndax place u leeraab rek lay doon fu aylan ni ki jaa a rujaylun raaytu rujaylan marartu bi rujay lin kon mujj moom siixatu tasxiir bi amatu ci atte place u leeraab la ah wuuteeg su fekkee nag dafa ëpp loolu kon dañoo war a kasra la topp ci yaagi am baat yoo xam ne nag la topp ci yaagaat dañu koy fata ni ki wasnu afaalin soo ko doon jamu fiilin ni ki ajmaal jamu kile nga xam ne kooku moom la jëkk am na ci lu mu ci junjoon ci mulxatul iraab kadaaka ma maddata afaalin sabaq dana ko wax fii wala nga xam ni baat bi da doon maalaan sarif am ziyaadatu faalaan ni ki sakraan xam nga kooku doo mën a kasra la topp ca ki su koy raan rek ngay wax waaye dooni su koy riin ndax alifu faalaana duñ ko soppiya alifu afaali nit kenn du ko soppiya moo tax ujay maalun ak sakraanu ngay wax la topp ci yàgga daanaa doo ko mën kasra ijaal defal fuaylan thulaasi ida saxartahu soo ko bëggee tuutal naxwu qudayun fi qada qada mooy lan wala fattu la koy firi maa yasqutu fi l ayni wal maa lii wadd ci bët nga di ko dindi wala mu wadd ci ndox nga di ko randal bala nga naan dindi ko loolu mooy qada wala nag fattu la koy wax bu dee bët kon qada soo ko dee tasxiir ci qaida bi nu wax dam njareen fata ñaareel andi yaaw tasxiir nga ne quzay mu des ak alif ñu soppi ko yaa nga ne quzayu naxwu quzayun fi qada fu ay cilun maa fu ay cilin li ma faaq mooy ñeel la ko ëpp fu ay cilun ni ki duray himun ci dirhamin juay fir ci ku tudd jaafar maa fu ay cilin bi maddi ndegam lu mel ni ki misbaaxun kooku alifam duñu ko xadaf dañ koy soppiyaa nga ni musaybiixun fu ay ciilu li loolu fu ay cilu nag fu ay cilun li ma faaq ñeel na lu passé sulaasi misaal ba ka jaali dirhamin ni ki def gi ngay def dirham soo koy tasxiir ni durayhim wa ma bihi li muntaha al jamci wusil bihi ila amsilati tasxiiri sil sil jokkal maanaa tawassal jokkool ci say pexe ila amsilati tasxiiri jëm ci awsaani tasxiir yi ah dégg nga maa la nga xani dégg nga wa tawassal wasila jokkoof na bihi ci moom li muntahal jam wama la nga xani wasila jokkoof na bihi ci moom li muntahal jam sil jokkal bihi ci moom ila amsilati tasxir fa nga jaaroon ba mën a def amsilatu jabi taksir yi awsaan yan na nga fa jaar mooy li ma la wax ni ñoom benn la ñu yoon wa ñuy jaar dana feeñ ci misaal yi su ko defee ma ngi mel ni ba nga doon tasxiir safar jal ba nga koy jamu da nga doon dagg laam gi wax safaari ji ak keet nga ne sufayri ji du dëgg mustadin ba nga ko doon jamu wa siina wa ta wa asini siina wa ta wal mimu awla min siwaahu bil baqa kon mim ga nga fa bàyyi woon ni madaaci déet keet defal noonu dindi siin gi ak taaga wal mimu awla bil baqa nga ni mudayci tasxiiru mustadin muntaliq mutayliq nga waxoon dindi nuun nga waxal ba tey ma mataaliqu ba tey nil mutayliq xaysabun dégg nga dafa ni woon kooka waaw wa rek la yaaja rek la ñu war a dindi wal yaa alal waaw waxsi in xasabta ma jamaa in in jamaata maa ka xaysabunin wa huwa xukmun xutim lu mel ni xaysabun danoon yaagi mu ngay def nga ni xasaabiinu waaw wi man soppiyaa booy tasxiir jaaral foofu dindil yaag nga ni xusaybiinu awa loolu lu mel ni faris daq nga xam ne dafa am rabiu shabihu bil mazid wa rabiu shabihu bil mazid qad yuxdafu doona ma bihi tamal adad la waxoon kon boo dikkee au lieu bu la neexee qad yuxdafu daal min faras dak su la neexee kay def ko ni nga defoon ci safar jal dindi mujj moo doon cosaan ni farazid tasxiir nga ni furayzid waaye ba nga xamee ni mënoon nga ni dindi daagal ndax li mu niroog shabih ci maxraj moog taañoo niroo nga noon furay furay ziq ba tey keet fara fara ziq ba tey keet mën nga ne furay ziq dindi daal gi hakaza loolu tànn loo woon na la fi saaiday saranda ak alanda ni yooyu loo ci dindi baax na bu la neexee ni suray di ak suran di maanaam sara di wala ala di bu boobaa sar nga ni suray di wala olay di saroon nga ni sañoon nga ni sara nidu dindi alif ga bu la neexee ni suray nit ba tey loolu moom moog baabu tasxiir benn loolu mooy maanaa wa ma bihi li muntaha aljamci wusil bihi ila amsilati tasxiiri sil wa jaisu wa jaisun taawidu yaa qabla taraf koko ñoom ñëpp ko bokk in kaana baadu lismi fiihi man xadaf wa jaisun lu dagan la ci ñaari bunt yëpp taawidu yaa remplacé yaa qabla tarafi la jëkk xarafu mujj wa in kaana su fekkee dafa nekkoon baadu lismi lenn ca lisim ja ngay tasxiir mbaa nga di ko jamu taksiir su fekkee yenn ca xaraf ya in xadafa ni ki nuunu muntaliq ak yooyu fii fi maa ci ñaari bunt yëpp nga ni mutayliq yaa googu dafa xas sa remplacé nu nuun googee nga xadaf la jëkk muy وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما وكل ما لب لو خاني خالف دفا ووتيك حكما اتي بو خاني رسما بنديف نكو تنو جانغ كو nga deg ni la nonu ngay def lu jeng lolu lu ko moy rek حائد lu jeng la عن القياس وكل ما خالف حكما ذكر في البابين لولو حائد lu jeng la عن القياس كون سماعي لا يقتصر فيه على السماع واي nak لا يقاس عليه كوكوت am nay misaal ni ki raxtun su fekkoon ni qiyaasu jamoom dañu naan def ni faalun yi rek ñu ni ruxuutun du dëgg ñu ni araxitu kooku génn na qiyaas boo ko soo ko doon tasniyaat nga naan urayxit jomb na qiyaas maanaam jadd na qiyaas wal qiyaasu ruxuutun baatin faailun la joo xam ne xayru aqil lisim la daal du du sifa lisim la du sifa kooku kon fa fawaa'ilu moo ca doon qiyaas ñu ni bawaatil ñoom ñu ni abaatilu waaw waaw tasxiir itam noonu maghrib suñ jaaroon ci qiyaasu tasxiiram mugayrib la ñuy wax ñoom ñu ni mugayribaan waaw ashiyatun su doon qiyaasam ushayatun lay wax dégg nga ñu ni ushayshiyatun foofu takraar si ushayshi yooyu la ni lu ci jàdd ni qaayida bi nu tëral kooku jaarul ci qiyaas lañ ca dégg doy na kenn du ci qiyaas li tilwiya tasxiri min qabli alam tanisi naw maddatihi lfatxun xata li tilwiya tasxiri ñeel na xaraf wa topp ci yaawu tasxir alfatxu fata in xatama war na li tilwiya tasxiri ñeel la topp ci yaawu tasxir lii dëpp fi quwati listisnaa'i dafa mel ni maanaam setti la yor ci li ñu daan wax ni la topp ci yaaw tasxir dañ ko war kasra mu setti ca nag ay yëf alfatxu fataa nag in xatama war na li tilwiya tasxir ñeel la topp ci yaaw tasxir min qabli alamati alam bi maana alama alamati tanis mandargam tanis ci taa nee na la ko jëkk la topp ci yaaw tasxir ga danañu ko fata bu fekkee mandarga tanis ca topp dégg nga aw maddati wala maddu tanis comme ci xamra ak yu demee noonu dégg nga su ko defee nga ni tey lu mel ni tamratun tumay ratun ngay wax waaye doo wax tumay riitun ndax taawu tanisu lisim la ko jëkk fokk ñu fataaw bu dee maddagaat ni ki salma wala xamra nga ni sulayma sulayma yi ngay dégg ci turu jigéeni arab salma bu ñu tasxiir la doo doo kasara miim bi di wax sulaymi déedéet xamraa ut xumayraa u rek ngay wax yaa xumayraa ci xadiis dégg nga alfatxun xatama ci yooyu yaar kadaaka naka noonu fata war na ma madda ma sabaqa la jiitu maddata afaalin maddu afaalin ni ki jamalun jam ohoo ajmaalun nga di ko tasxiir bëgg ni ay gëléem yu tuuti nga ni ujay maal waaye bul ni ujay miil ndax alifu afaalin jamu kenn du ko soppi yaa kon yooyu moom nit tangoog ci yi nga xam ne setti nañu ko des na itam lu dëgg ñent ndax yent yëpp setti nañu ko ci dégg nga alaamatu tanis ni ci taa wala maddam wala alifu afaalin ala ko jëkk yooyu dañ leen di fataa bu toppee ci yaaw tasxir wala maddu sakraana alladi la yansarifu lamul xawa nga ñu sukayraan wa maltaxaqa bihi ak lu ca jokk lu mel ni ki Ousmaan ak Imraan Usaymaan Umayra wa alifu taanisi xaytu mudda wa taa'uhu munfasilayni udda alifu taanis nee na xaytu mudda fu ñu ko fu xëcce wa taa'uhu ak taawu taanis udda ñu konte leen munfasilayni ñuy ñaar ñu facc mel ni ki nekkatuñu dégg nga su ko defee dañuy mel na dañoo facc daal ba tax kon kenn du leen xadaf ngir bëgg seexatu tasxiir gi jub te da ngay def sa seexatu tasxiir mel na noonu la toll li fi des compté woo ko dafa mel ni bokkul ci baat da nga koo compté lu fi nekkoon alifu tanis xaytu mudda xamraa nga ni xumayra sa fu ay ilun ah fu ay ilun ngay def waaye xam nga la jëkk alifu tanis moom doon alifu tanis dañ koy dañ koy fata waaye daal doo ko dindi wacc daal noon xumayrun déedéet da nga ko fay bàyyi rek xumayra moog taaga kazanaka noonu almasidu lu ñu dolli axiran ci mujj li nasabi yaaw askan bu dikkee ci baat doo ko dindi dégg nga jun dijjun soo ko doon tasxiir dooni junay di rek déedéet da nga naan junay dijjun rek dégg mel ni ki baat bi dégg nga ñe- ñeenti xaraf dong la wa ajizal mudaafi wal murakkabi mujj ajizul mudaaf mujj mudaaf mooy mudaaf ilayhim ak mujj murak murakkabul masjid ni ki baala baka abdullahi mudaaf la ajiz ba sadru bi mooy abdu ajiz bi mooy allah ji kon kookaat kenn du ko dañ koy compter munfasilan dañu koy compter ni jokku fi nga ni ubaydullahi rek du tax nga ni ubaydun yem ca murakkabit baala baka bu ay la bak rek ngay wax doo ko dindi wa hakada ziyadata faalaana ñaari ndollente faalaan min baadi arbain kookoo tam dañu koy def na lu fi nekkul ni ki su ay firaan dégg nga su ko defee moo tax du la yàqal dara ci sa tëgg fu ay il la ni su ay firaan bu dee juróom benn araf nga kasra moom la topp ci yàgg wa qaddirin fisaala ma dalla ala tasniyatin aw jami tasxiixin wa qaddir mi nga nattale infisaala ma faccug loo xam ne dalla dafa tegtale ala tasniyatin ci tasniya wala jamu tasxiix tasniya dégg nga alif ak nuun mbaa yaa ak nuun moo ca jokk bu dee jamu tasxiix waaw ak nuun wala yaa ak nuun moo ca jokk yooyu da nga koy taqdir comme lu fa newul muslimina nga di musaylimina muslimatin nga di musaylimatin moom itam wa alifu tanisi fi lqasri mata zaada ala arbaatin lan tasbuta wa alifu tanisi alifu tanis zul qasri ba nga xam ne maqsuur la mata zaada waxtu mu yokkoo ala arbaatin ba mu yokkoo ci sulaasi niki xubla kooku noonu nga ko fa bayoon di xubayla waaye su fekkee dafa ëpp ñeent niki qarqara alif ga door a dikk nee na kon alif ga boo ko dee tasxiir bu mu fa sax nga ne xuray xir rek xuray xir waaye nag la mu la waxoon ah bu fi in kaana baadu lismi fiha man xadaf mën nga dolli yaa la mujj remplacé ko bu la neexee ne xuray xir lan la wa shadda tasxiiru ah ah wa shadda waaw loolu laa man ma sama bët wa inda tasxiiri xubaara xayiri bayna alxubayra qadri wal xubayiri borom ñaari ndollant yooyu ni ki xubaara ñaari alif gi xubaa ak raa nee na wa xayir tànn lool inda tasxiiri xubaara fa ngay tasxiiri xubaara bayna lafzayn bayna alxubayra xadaf alif gu jëkk ga wala xubayir xadaf gu ñaareel ga su ko defee bu jëkk gi day daal di topp ci aw tasxiir nag ñu soppi ko yaa xubayir ak xubayra naka ca dégg nga fadri xamal loolu kooku jumlay li itiraad la rek bayna alxubayra wal xubayir wardut li aslin thaniyan laynan qulib faqimatan sayir quwaymatan tusib mu ne su fekkee xarafu ñaareel wa cosaan la fa ci baat bi te di xarafu nooy xarafu ràgg la kooku xuli ba dañu koy soppi waaw dañ koy delloo daal ci cosaanam laaw lu doon cosaan bu dee waaw delloo ko ca bu doon yaa delloo ko ca loolu nag bu doon jamu taksiir it ñoo ca bokk atte ba qiima tujji firi qayma mu ngi jóge ci qaama yaquumu mooy cosaanu baat kon yaam gi ñaareel baat bi ci qiima asluhu qiwmatun kasra jiitu waaw musukoon ñu soppi ko yaa ne qiimatun wasnu fi'latin min qaama yaqum kon nag soo koy tasxiir delloo ko ci cosaan urdu delloo lil asli nga ne quwaymatun moom la ni kon fa sayir mu jalal ci kaw qaa'ida bi nu ni wardud li aslin thaniyan laynan quliba waawan maana dañ koo xalbu woon leneen dégg nga dañ koo xalbu woon yaa ci qiimatun na nga ko delloo ci cosaan nga ne quwaymatan moom la ni fa sayir mu jëlal qiimatan mu nekk quwaymatan soo ko defee tusib nga jot sawaab ci yoonu tasxiif wa shadda gën na qiyaas nag fii ciidin ci ciid ñu naan uyaydun te xam ni ciidun uwaydun moo ca qiyaasu woon naam ndax li annahu min aada yacuudu aada yacuudu ñu tudde ko ciid ndax li muy dellu si at mu ne dégg nga kon suñu su jaaroon qiyaasam uwaydun la ñuy wax waaye nag dañoo bañ mu jaawaloog tasxiiru ondin ondin ab bant du dëgg kooku waaw bi amul cosaan bu ñu koy delloo de da nga naan uwaydun as mbant su iid soo ko delloo ci cosaan ni uwaydun dañuy daal di jaawaloo ñu faf bàyyi iid ci yaam ñu ni uyaydun shaaz la na waxutima war na lil jam i ñeel jamu maa olima li ñu xam li tasxiir ñeel xiir min za ci atti yi nu wax maanaam baat bi lii nu la ci wax tasxiir boo ci doon jamu taksiir it noonu nga koy def foo ko war a soppee yaa ci soo ko war a soppee yaa da nga ko koy soppi soo ko waree bàyyi ci yaa da nga ko cay bàyyi seetal iidun dafa la ni génn na qiyaas nga ba fa yàgga ngir bañ mu neroog tasxiiru uut soo dee jamu taksiir ayaat la fil ayaadi ci feet yi doone fil awaadi ndax ko nit ñi defee ni ci bant yi nga kon bu waxutima waraleef na lil jami ñeel jamu taksir min za ci ati bii nu tudd maa lépp loo xam ne ulima xam nañu ko li tasxiir te mooy li nu wax nii nga koy def naa nga koy def ca ba nu tàmbaleeg tey bu dee jamu noonu dégg nga wal alifa saani al masidu yujalu waawan kazaamal aslu fii yujalu léegi am na fu ñuy soppee alif waaw ci tasxiir wu jóoban mooy alif alif al saani gu ñaareel almasiidu gu ñu yokk ni ki alifu daaribun soo ko bëggee tasxiir yujal waawan nga ne duwayribun kazaanaka noonu ma alif goo xam ne yujalu def di réere al aslu fii ci moom nga xam ne amul xamunu cosaanam bu ñu koy delloo amu ko kooku ni ki dañ koy soppi waaw ni ki aadamu aadamu li xëcc xam sa gi alif la soo ko doon tasxiir looy wax waxal